Happy People TV.

ils ont d'autres chats à fouetter jeunesse bi Sénégal bi actuellement nii. mais tax ñu ko doon topp. waaw waaw parce que temps gis nga boobu la benn réseaux sociaux yi boobu ndaw yi ñoo ni toog am yaakaar si réew mi. Mm-hmm. nga ñëw fekk leen ñu toog di ataaya. Mm-hmm. amoon tamit seen jàmm. Mm-hmm. ganaa jox ma fefti gannaaw jox ma téeméer. gannaaw tey damay baale abal ma ten taw. booy loolu la doon dundee du dundee yaakaar. dem ak nank-nank nga ñëw ne yow nga ñëw ne leen. Alioune Sall amel na leen ku nekk quatre cent mhm. génne leen ñu xeex. waaw ndaw yi boobaa nan la ñuy def. dañuy génn ànd ak yow xeex. mais léegi yow yaa nekk au pouvoir amatoo dara loo diw ndaw yi lu dul indi leen solution seen bi. Mhm. moo tax ndaw yi kenn toppatu ko. d'accord loolu rek war noxo yee mu jublu si ndaw jeunesse su Sénégal bi. d'accord. ba tey dañuy ñëw ci li nga xamante ni moo soxal wàllu Casamance jamono ji nga xamante ni Bakel ñu ngi ci ay jafe-jafe Podor Matam ay réew yu bëre lii di nga xamante ni mooy jiw bi jëmale ko ci légume bi lépp yàqu ñu gis ni que dafa mel ni état bi dañuy ignorer ñi nga xamante ni ñu ngi dund ci jafe-jafe ñu teg benn plan boo xamante ni ñu ngi ko tëppee plan Casamance def ci 62 milliards ñu bëri am lu ñuy jiixi jaaxa barki démb bu am na benn gradé de l'armée bu joxee benn euh, information Afrique confidentielle xamal ni daal ñii li ñu bëgg maanaam mooy indépendance la Casamance parce lii di base militaire bi ak

wax ni taxaw ci Sénégal ne moom du rebelle hmm. ne na wax si jàmmu Casamance. pour mu hmm. mun a débattre moom. dafa hmm. am Mimi Touré loolu la ko waxoon. waaw ah, loolu la ko waxoon dafay kon tey Mimi question bi nit ñi di indi jiixi jaaxa. Mhm. ba nga xam ne ni bàyyi nañ Jolof. bàyyi Podor bàyyi mhm. Matam. Mhm. bàyyi Tamba bàyyi fépp ci Sénégal. dem jël alal bi nga xam ne ni Sénégal yëpp ko bokk. jëmale ko si benn raison. muy raison boo nga xam ne mooy raison première ministre. pour ñoom ñu toog muy dox. pour ñoom ñu doxle. pour ñoom ñu gënle. pour ñoom ñu am doole. kon du boobaa tamit dans li may wax rek. ku si nekk rek doo ràccee sa kanam mu dëll Ousmane ràccal na kanamam moo ni defar dëkkam léegi nag xel day ñaaw. Mhm. xel day ñaaw parce que bi fi président Diomaye. Mhm. yow yéegee rek. MFDP mhm. dañoo gis ñu yéegal seen drapeau. d' wane ko. waaw wane ni ñoom ils sont pas d' accord lan moo tax ba léegi. ah gouvernement musa ñëw bee robet yi dañ daan yëngal. dañ daan yëngal ba mu yëngatu. lan moo tax bay pendant sept mois moo ne nii. ñoom yëngalatuñu. man je me pose la question. lan moo tax yëngatuñu. dañ ci génn. ci laaj indépendance wala léegi dañu am indépendance. parce que dafa melni ni fu mu nekk nii. Mhm. ñoom ñooy gouverner ce pays ah. waaw mais ki nga wax tay moy premier ministre mom jëlul décret signature bi jomay mo koy def alors que Diomaye nekkul sa de la Casamance te gis nañu mutisme mom ak silence am ba léegi waxul ci walu drapeau bi nga xam ne ba tay ji mi ngi yëkkatee ko fofu ci MFDC pour yow Diomaye moom mooy président. moom la Diomaye Sonko non du pour man parce que mooy président. Sonko ay Diomaye Diomaye mooy Sonko. loolu kay nekkatu ko barki démb bu saawaay ne day def ay mesures correctives dafa ne journaliste bi kooku moom la engagé. kon mënu commencé yeewu moom moom waxam mooy. amul ku bokk Pastef ku ñàkkul bokk Pastef ku mu gis ne am nga compétence mhm. e mm. da lay nommé. léegi kay loolu jeex na depuis. waaw waaw mais épitange xaalis boobu yëpp ñu fa yóbbu. est-ce que voté nañ ko assemblée. kenn voté wu ko assemblée. kon ñoom fu mu nekk nii lu leen neex la ñuy def. Mhm. parce que sénégal yi dañoo ànd ak ñoom ànd gumba te le cœur a ses raisons que la raison doit savoir même dooy ànd ak nit da ànd ak nit ci ay principe hmm. ci ay conviction nga mun a ànd ak moom mais doo ànd ak moom aveuglement hmm. léegi nag les sénégal ils n'ont qu'à juger léegi ci sen projet livre solution bi opposition bi mo wara am majorité parti au pouvoir warul am majorité pour que ñu mën contrôler l'action du gouvernement vu que parti au pouvoir moo yor exécutif moo yor judiciaire lan mo changé ci diggante bi tay ba passer war battre campagne soxla majorité ci bop sénégalais yi. waaw mais foog mo foog mo foog mo foog mo foog mo foog mu case clientèle politique bi. wa mais soxlawu leen ko bokku bokkul projet non gis nga Tange duñu bëggé wax dëgg rek dëgg te yàlla tax. Hmm. dëkk pour mu dox. Hmm opposition moo assemblée. parce que ba su opposition aurait assemblée. Mhm. day am défi. Mhm. si l'état du Sénégal. si gouvernement bi. défi boobu moi. képp ki nga xam ne ni ministre nga. Mhm. wala directeur nga. sa liggéey dañ si njëkk dañ si gën fagarlu. parce que sa adversaire moi lay surveiller. D'accord. Tay kon lolu day dimbali jomaay. day dimbali sonko day dimbali directeurs yi. day dimbali ministres yi. te boobaa Sénégal day gëna am doole. léegi nag loolu Ousmane yéenewuñu ko Ousmane daf ñu bugg yéene loo xam ne lépp da ciy tënk loxoom du ko tënkee loxoom nag du boobaa kenn mënu ko dindi kenn mënu ko wax lii baaxul wala lii baax na parce que du boobaa ñun Sénégalais dañoo takk suñu buum Pour suñu baat jox Ousmane D'accord. en tant que membre fondateur du parti PASTEF membre manipulateur membre la mauvaise information tay fi nga tollu nga gis que jëmul kër nga génn ci message lancé à cette jeunesse pour sensibiliser leen ci nga élection législative par rapport ak propos yi nga leaderu PASTEF mi ngi koy accusation milliards la jaayuma euh, rëbës ci la bokk. Mhm. barki démb nee na affaire encore xaw ma gaz bi benn partie bi dañ ko jëloon di ko produire di ko génnee alors que moom dafa prévoir defal ay pipeline pipeline yi Macky Sall defaroon moom nekk na Macky Sall prévoir ko moom moo ko prévoir ban message nga leen di lancer jëmale ko ci discours Pastef. waaw jeunesse bi dama leen wax rek ñu continuer déglu Mollah Morgun parce que Mollah fu mu nekk nii. mais Mollah tey mu verte suba mu ñuul. waaw waaw mais mais mais ñoom. Hmm. mais ñoom si loolu rek hmm. war nañu xam.

waaw xoolal <laughs> da nga naan ko ñaw. très bien waaw laa wax. mais fu mu nekk nii ñoom ñëpp a ñëkk. ba si Fat Mata daa soxo kooku bàyyi na. bàyyi na moom dagg na cordon ombilical bi jeex na. Kees euh, Fort dañuy wax nii rek sax heureusement bu mu jégalu. ñëpp ñoom ñëpp a jégalu Karim ak Assane Diouf léegi nag ndaw yi fi nekk. Mhm. nekk ay jeunes ñun on peut pas les forcer la mhm. parce que si say défaut. Mhm. si say défaut ak ci sa expérience bu ñu am. moo la ñu mën a dimbali. ngir ñu jëriñ réew mi léegi nag ñoom nan la ñuy def ba jëriñ réew mi mooy ñu ànd ak réew mi si dëgg mhm. bañ a ànd ak réew mi si nit bu leen ñu manipuler wala bu leen dul wax bëri parce que nit lu mu wax rek yow sa maayin war na mun daw nga ne diw lan moo tax mu wax lii mhm. diw lu ñu daan wax ak lii tey am est-ce que dëgg la mhm. lan moo tax mu ñuy imposer na nañu xaar dañoo yàqamte te moom waxoon nañu deux mois lu tax lu tax boobu nit ku nekk war nga di indi si sa xel nit wax ba pare nga ne lu tax nit ki wax parce que Ousmane li mu digoon ndaw yëpp yi am yi ndaw yi am si moom yaakaar mhm. ay nit jàppale ko si engagé wu si tey ndaw yi duñu taxawee rek dëgg di leen xam ni Ousmane war na delluwaat tuuti ginnaaw mhm. pour mun a jàppale les Sénégalais d'accord Tange ndawu Sénégal mhm. dañoo am jeunesse buy dundee yaakaar dañoo am jeunesse bu yaakaar réewam am tamit jeunesse bi nga xam ne ni bëgg na réewam parce que amul Sénégal sénégalais bu bañ Sénégal. suñu problème chaque fois rek moy problème yu ñi am rek mooy nos leaders politiques. légui ndaw yi je vous donne un conseil il faut pas voter majorité pour Ousmane Sonko il faut voter majorité pour l'opposition moy doon Sénégal, je moy doon njëriñu Jomaay moy doon njëriñu Ousmane Sonko. parce que létat tax muy doon njëriñ bi moy surveillance état bi contrat pétrolier ñun ñëpp dinañ ci xam parce que opposition bi nek assemblée dina ci taxaw dina leer nangi parce que ñoom mën nañ ñu ko nangi nga xamé du am par parlo suñu gaz pétrole zircon cuivre lépp suñu or beeg yëpp opposition kese moko mëna mën a fofu lañu soxla et puis la politique industrielle moy xëyu ndaw yi du boba opposition bi dina ci mëna taxaw forcer la main pouvoir bi fi nek ñu ndax ñu jox ndaw yi liggéey parce que la loi des contraintes dafa baax si lépp jigéen du amulee wujju sukkinam du rafet te damay ñaan yàlla jomaay am wujju ndax sukkinam mun a rafet mhm. voilà d'accord